pour waxaat état bi ne ko dañoo bugg li nga xam ne moom la tàmbali ba fii ñu rafetlu ko parce que nag yombul woon pour ñu reprendre chemin de fer ci ci Jaber yombul woon yombul woon pour ñu reprendre suñu or y avait beaucoup de risques risques yooyu ñoom assumé nañ ko yàlla def na reprendre nañ ko ñu ngi leen di ñaan ñu relancer ko nu mu gën a gaawee ñu ngi leen di ñaan retard de salaire yi ñu arrêté ko ñu ngi leen di ñaan 7 milliards yi nga xam ne ñaari état yi engagé woon nañ pour doxal transition bi ñu doxal transition bi lii mooy suñu tànk tey waaye li ñu gën a itteel dëgg dëgg dëgg mooy retardu salaire yi nga xam ne depuis fin du mois ba tey ñu ngi soog a les virements viennent d'être effectifs nous sommes aujourd'hui le 20 mais ça c'est inacceptable ça c'est inacceptable nous voulons également que nos camarades soient correctement réinsérés c'est que certaines décisions soient prises kon camarade lii moo doon suñuy tànk ñu fàttali leen ne CNTS force du changement mu ngi ci seen kanam mu ngi ci seen ginnaaw te bu soobee yàlla li ñu gis fii ci atelier yi ci ay jafe-jafe yu nga xam ne li ko téye lépp mooy engagement yi ñu respecté wul bu soobee yàlla c'est un combat que nous allons porter ñu fàttali également ne suñu conseil central jox nañu ndigal pour que ñu porter le passif social lii tey ci lay bokk. parce que lii jàpp nañ ne passif social la li xew ci biir éducation passif social la wax naa ko sànq li xew ci biir santé passif social la wax naa ko sànq jàpp nañu ne nguur ji bàyyi na xel ci suñuy position parce que bañ génnee ca conseil central ba effectivement la ñu dégager axe de lutte yi nga xam ne moom la synthèse force du changement war a assumer bi ci jiitu mooy absorption passif sociale relance des entreprises en difficulté mais également la liquidation des droits des travailleurs de toutes les entreprises en difficulté waaye loolu gis nañu ne alxames bi passé conseil des ministres effectivement président bi joxe na ci ay ndigal yu leer pour loolu kon loolu aussi mën nañ jàpp ne suñu kàddu dégg nañ ko li ci des mooy ñu doxal ko rax ca dolli synthèse force du changement à côté du combat de la relance des entreprises euh, en difficulté mais aussi des mauvaises euh, privatisations de la reprise des entreprises euh, mal privatisées dañu songoon aussi beneen combat mooy wàññi njëgu pétrole bi wàññi njëgu produit pétrolier yi combat boobu am nañ ci ñetti yoon ndam parce que 2015 ba 2016 wàññi nañ ko ñetti yoon ñu wàññi ko ñetti yoon ñu gis ne wàññi boobu am na jeexital ci courant bi te wàññiwuñu courant bi ñu gis ne am na jeexital ci mburu mi ndax boulangerie yi am nañu ay gain te wàññiwuñu pain bi ñu gis ne am na jeexital ci transport bi te wàññiwuñu njëgu transport ñu gis ne am na jeexital aussi ci autoroute à ak ndox mi loolu it ay combat yu ñuy porté dem demane dañu bëgg nguur gi wàññi courant bi parce que Sénélec bi ñu wàññee njëgu produit pétroliers yi ñetti yoon mën naa wax ne consomation am nañ ci gain près de 40 pour cent waaye waaye nañ ñu delloo 20 pour cent yi wàññi ko ci courant bi. loolu la ñu wax parce que lii lu leer la kasaalika ci mburu mi mburu mi fi mu nekk nii wàññi nañu diesel bi nga xam ne moom la euh, euh, boulangerie di utiliser ba pare wàññi aussi prix blé bi ci àdduna bi boo combiner ñaar yooyu ñoom am nañu gain wu cinquante pour cent waay waay mburu mi dañ ko wàññi au moins trente pour cent bokk ndox mi noonu transport bi noonu te dara wàññeekuwul synthèse force du changement mënatul nangu situation boobu dañoo bëgg ñu wàññi courant bi wàññi ndox mi wàññi mburu mi wàññi transport bi loolu moom xar nañ ci suñu tànk tubéy dañoo bëgg aussi liggéeykat yi nga xam ne dañ leen a xañ seeni droit ci entreprise yi ñu liquidé dañu delloo leen ko loolu nguur gi àdduna ci dañoo bëgg liggéeykat yi nga xam ne dañoo dem ak seeni njaatige ci yoon ba tribunal jox leen dëgg te seen dëgg googu mënuñu fexe ba jot ci ay at a ngi nii dañoo bëgg ñu jox leen dëgg ñu indemniser leen liggéeykat yi nekk ci nettoiement bi ñu dem ni ñu demee ni ki waa SIAS ex travailleur SIAS ak waa AMA ñooñu yit ak ñeneen seen i dossier dañoo bëgg ñu liquider ko bokk nañ ci passif social bi accord yi nga xam ne moom lañ defoon ci éducation ci santé ci collectivité locale te nguur gi jotu ko woon respecté am na lu mu ci def gaa waaye des na dañoo bëgg ñu def ay waxtaan pour que li des ñu wax ñu kañ lañ koy réglé kon camarade lii mooy combat bi nga xam ne CNTS initie CNTS FC initié na ko te tàmbalee ko fii ci yéen parce que yéen a ngi ci ay jafe-jafe ay retard de salaire tàmbalee ko fii ci yéen parce que engagement yi ñu jëloon des na kon dinañ ànd ak yéen ànd ak toutes nos sections syndicales pour que combat yi nga xam ne. déterminé naa ko fii leeral naa ko fii ñu saytu ko ba ñu am ci ndam ñu saytu ko ba fexe ba euh, nguur gi dégluñu employeurs yi ñu mais également ñu fexe ba protection sociale bi gën a yaatu waaye loolu it bëgg nañ ci boole unité organisation syndicale yi syndicats yi nañ nekk benn syndicats yi nañu nekk benn parce que suñu doole ak suñu ndam ci foofu la aju gis nañu ne doole syndicat yi tasaaroo nañ lool waaye loolu duñu découragé loolu duñu tàyyiloo duñ tàyyi di wax pour syndicat yi nekk benn waaye it duñ jóg ci chande de bataille bi ci turu synthèse force du changement pour que liggéeykat yi mobiliser wu pour que revendication liggéeykat yi ñu satisfaire leen lii moo nekkoon suñuy tànk ñu leen di sant di leen gërëm